bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa yi delli su ci sunu jotaay bi ñuy faral di seq ay gis ku ci jéem a tontu ay laaj tey nag yu war a toll ci fukki laaj ak yaar dikk nañu fi ñu leen di jéem a tontu sunu kem kàttan laaj bu njëkk bi day wax ne ku bay ab toolam ba mu ñor ba mu naaf ko wala daal teg ko fa koy teg euh, ndax dana sañ a jëfandikoo ay produits yooyu dañ koy aar ci lu mel ne ay gunóor wala ay ay janax ak yu ni mel nga xam ne produit yi dañuy lor yooya ngir aar am mbayam waaw sañees na ko nit yàlla may na ko loolu may na ko lu koy yàqal yàq alalam mbaa mu koy lor ci jëmmam yàlla may na ko mu lor loola ngir aar boppam wala aar alalam kon sañ na ko moo tax yi nga xam ne dañuy lore ñu maye ñu rey leen rey nii rek waaye yu loore lore kenn sañu leen a rey nii rek bu dee lu dagan a jëfandikoo la moom sañes na leen a uh, ren di ngir jëfandikoo leen waaye nag bu fekkee duñ lore te duñ leen jëfandikoo sañesu leen rey waaye buñ dee lore nag sëñ na leen a rey ngir aar boppam ba aar alalam loolu kon foofu lay dugg gis nañ lu mel ne yooyu yi ñuy pomp waaw ñuy faatu ngir aar suñ bopp ci sibóor ci jos yëpp noonu la demee rek ñaareelu laaj bi day wax ne xam nanu ne euh, yenn yokk yi ci julli day waral sujjoot ginnaaw bu nit ki sëlmale ba noppi yenn wàññi itam day waral mu sujjoot lu jiitu muy sëlmal mu ne ku war sujjoot lu jiitu muy sëlmal nag waaye mu fàtte ko ba sëlmal nan lay def ndax day sujjoot rek wala day julliwaat waaw bu dee da teel a fàttaliku nga xam ne yàggut kon day sujjoot rek day sujjoot ñaari sujjoot rek bu fekkee nag yeex na koo fàttaliku kon dañuy xool lim bàyyi woon ba tax mu war a sujjoot dañ naan bu mu fekkee dafa matoon ñetti sunna kon moom day julliwaat julli ga day yàqu day julliwaat ginnaaw yàgg na mu doon fàttaliku ne sujjootu doon te la waral waroon la waraloon sujjoot ba doon ñetti sunna mbaalu ko ëpp bu fekkee matul ñetti sunna nag kon day bàyyi noon rekk bu ko yeexee fàttaliku du sujjoot day bàyyi noonu rek te julli ga dana baax ñetteelu laaj bi daa day bëgg a xam ki bëgg santale sëriñ bu mag bi yàlla ci bisu màggal gi nan lay yéenee man de ni ma koy waxee rek ci lu simple mooy bu bis bi duggee wala wa rek mu yéene yéene ne lépp lu mu def ci lu baax te du farata yéene na ci santale ko wala santale ci sëñ bi yàlla ku def noonu man na noo jàpp ne santule na sëñ bi yàlla te mooy kon màggal na yéen lépp lu baax lu def rek ci bis bi te nekkul farata rek yéene na ca sant la sëñ bi yàlla yéene nag ci xol lañ lañ koy defee laajut di ko wax ci làmmiñ laajut di ko wax ci xel itam ñeenteelu laaj bi day wax ne ndax dagan na ci ab julit mooy toog ci kanam mbooloo wala di ko wala toog ci télé wala ab rajo di wax daan gis naa faatug diw wala diw nangam dana ko dal wala yu mel noonu yooyu de da danoon mën a wax ne bu fekkee lam waxee ne xon noonu la ko xamee lum sabab lu la sabab lu googu yëpp dañ koy tere sabab loo xam lu nëbbu dañ koy tere mooy jéem a xam lu nëbbu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere jéem a xam lu nëbbu da koo tere Euh, kon fam fam sabab loo ngir xam ko rek loolu dañ ko tere waaye bu ne xam na ko nag moo xam da ko sabablu moo xam sababluwu ko yàlla mën naa xamal nit dara nii rek loo xam ne moom sababluwu ko yu mel noonu lu mu ci mën doon moom warta doon lu ñuy wax ci mbooloo warta doon lu ñuy wax ci kanam mbooloo bu dee kii wax wóor na ko ne li muy wax lu mu xam la wala ko wax ci kanam mbooloo a ah, bu fekkee nag day wax nii rek <laughs> loolu moom meneen mbir la <laughs> kooku loolu kenn di ko war a def moom ba di ko ci kanam mbooloo ci lu dul mbooloo wax joo xam ne tegewut ci ak xam dëgg-dëgg waaye wax la nii rek bu dee nag moo sabablu ngir xam ko jëmmi sabablu ko moom dañ ko ko tere woon kon daal euh, wax gi moom ci mbooloo ak ko man di xame moom gënut gënut bu wax gi munta ñàkk itam nañ ko na ko wax ak rek ngam yitteel juróomeel laaj bi day wax ne dafa gis lu ñu wax ne sëñ bu mag wee ko wax ne nit mën na ko defal ay way juróom mu ay wax yooyu wax yu baax la xeeti tudd yàlla la yooyu da koy boo ko waxee ba noppi da daan yàlla maa ngi leen ñaan nga nangul ma ko te yool bi nga jox ko sama ñaari wayjur moom mu ne dafa mel ne loolu wayjur yi fi nekkul lañ koy defal dafa mel na ji de ci wax ji wax ji mu wax feeñu ci feeñu ci wax ji wax moom feeñu ci ne euh, wayjur yu fi yu dund la wala yu dundut kon ku sukkandiku ci wax ji mu wax rek kon moom mënees na ko defal kuy dund mënees na ko defal ku dundut kon mënees na ko defal way jur yuy dund mënees na ko jur yu dundut eh, moo xam wér na ne sëñ ko wax moo xam keneen a ko wax waaye moom le sañ la ndax sañ na nit sañ na def ak jaamu yàlla guddul farata ci moom ñaan yàlla yool ba mu jox ko keneen juróom benn laaj bi tey wax ne góor gu tooñ jigéen ba noppi ñu may ko ko tooñ moom yaa ko wax waaye wóorunu ba xam da ko tooñam déet waaye daal góor jigéen buñ seqee te ab sëy doxul seen diggante ba noppi ñu may góor ga jigéen ja mu ne te ab am mu toppe ko ca ndax doom jooju dana doon na ak ndaxit sëy boobu dañ koy dindi ak ndax danañ mën a sëyati waaw dañuy dindi lañ jàppee sëy dañ koy dindi ndax wérut du sëy dëgg-dëgg may lañ jàpp ne maye nañ loole dañ koy firi mais dañ leen di tàqale la ñuy wax rek na ab sëy doxul seen diggante te duñ mën a sëyati mukk duñ mën a sëyati mukk ñoom ñaar moo xam xamoon nañ ne dafa tollu diggante moo xam xamuñ ko woon ndaxte jigéen ju seq ak góor gudul borom këram moo xam moo ko tey moo xam teyu ko dafa war a laablu li ñuy wax laablu mooy toog ab diir boo xam ne kenn du ko fi maye ngir ñu xam ndax dara toppe na ko ci walla déet buñ xamee ne dara toppewu ko ci danañ ko mën a maye buñ xamee ne dara toppe nañ ko ci nag dañuy bàyyi ba mu am doom ñu door koo mën a maye mën nañ koo may kii kim seqaloon mën nañ koo may keneen waaye buñ ko mayee te laab lu mooy diir bi mu waroon a laab loo buñ ko ci mayee may ga du wér dañ leen di tàqale te ñoom ñaar dañ mën a sëyati mukk am na yu mu wax nag yoo xam ne xam naa dese naa leer ci moom ci lu ñuy xamee ne euh, ëmb bi da ko fay àndaale loolu moom lim ci wax leeru leeru ko moom xam naa ndax daa jàpp ne ëmb bu matul juróom-ñeenti weer rek dañ naan kon ëmb bi jëlee ko ci borom kër déedéet déedéet waaye li am solo daal mooy bo jigéen seqee ak góor te du boroom këram ci anam gu man di doon jigéen ji dafa war a laabloo diir bi mu war a laabloo nag buñ ne may nañ ko fi nit moo xam kim seqaloon na moo xam keneen la may ga du dañ leen di tàqale te ñoom ñaar duñ mën a seeti mukk doom joo xam ne judduwul ci yoon it du doon doom ju judduwul ci yoon lu doon mooy ju judduwul ci ab sëy bu wér ab sëy bu wala boog sëy bu am lënt bu demewut noonu rek du doon juróom laaj bi day wax ne euh, léeg buñ ne ku def jaamu yàlla sàngam dana ci tuyaaba sàngam wala lu tol nangam ci ay tuyaaba waaye ndax loolu am na cëslaay wala déet ah yooyu daa bari da bari lenn lu nek dañ koy xol bu de ki wax mom dana ci yonente bi la joge boba mom ñi yittewoo wa walu hadith ñokoy ñokoy gestu ba yañ ci teral ngir mëna nangu hadith bu ca dajé ñu nangu ko bu ca dajé ñu bañ ko nangu bu de ko wax na ci yonente bi la joge bu de ko ko xal bopam nak wane xam-xamu bopam la lolé mom gëm ak wéddi mo fa nek waaye du mbirum xam-xam bu boobaa du lu ñuy atte ci xam-xam waaye dañ koy atte ci gëm wala weddi ku waxal boppam ne moom lii maa ko xam dañ koy gëm baa ñu weddi ko ku xam ci moom luy tax mu rafet njot ci moom ba gëm ko mën na koo gëm ku xamul ci moom loola wala ku xam ci moom luy tax mu ñaaw njort ci moom <laughs> mën na ko weddi ku xamul ci moom nag li tax mu rafet jot ci moom xamul ci moom li tax mu ñaaw jot ci moom mën na caa maandu loolu la rek juróom-ñetteel laaj bi day wax ne borom kër bu am lu ëpp seen soxna mu wutal leen ay ay ñu yam ci waaye mu am nag ab bis wala ay bis yooyu moom lu ko aaye ci kenn ci ñoom da ciy nekk ak boppam mu ne bis yooyu wala bis boobu nag bu fekkoon ne euh, da ko may kenn ci ñoom euh, mu dellusiwaat mu mayaat ko keneen waaye am na ji ko ko ko mayee may na ko ko xëy na fanaan nag moom waaye nag sequt ak moom dara ka ci des nag mu seq ak moom ndax sañ na loolu waaw ay de moom dañ cee war a yem nit ki bis yëpp mën naa doone ay mën naa deme nii mu wax itam yenn bisi doone ay am bis bopp wala yooyu moom waayu kenn waaye bo ay xasee am nag ba yemoo am ca warta beral keneen lu jëm ci ay léegi nag ay firiwut ne saa bu amee rek seq day am seq moom aajo la aajo ci ñaar ñi kon ku ko ci aajo woo te ka ca des amul gant da ko koy nangul da ko cay fekki waaye sañut nag eh, am ko amuk ayam aajo woo ko te amul ngant ba noppi mu bañ ko koo nangul loolu sañu ko kenn sañu ko ñoom ñaar góor gi sañu ko jigéen gi sañu ko jigéen ji moom yonent bi da ci waxoon lu doy waar bi jigéen ji ko def guddi gi yëpp malaaka yi dañ koy rëbb di ko ñaan yàlla waaye dañoo jàpp ne góor bu ko defee nag du war a wuteeg jigéen bu ko defee ndax ko ci ne ci ñoom ñaar dafa ameel morom ja àqi loolu bu ko aajowoo te moom amul ngànt juróom-ñeenteelu laaj bi day wax ne ku amoon soxna bàyyi ko fi dem dugg ci gaal gi gaal yi wala waaw ñuy ñuy tukki dugg ci gaal yi ñu toog lu mat ñaari at dégguñ dégguñ ko xamuñ ci moom dara bañ jàpp ne dafa génn àddina ba soxna sa jàpp yidda ba mu jeex bañ may ko keneen ginnaaw bi nag la woote ñu xam ne kon mi ngi dund muy laajte kon kii ñu may soxna si sëy boobu nan lay demee loolu de bu fekkee lii lii la wala leneen lu man di xew rek mooy nit daal buñ demoon ba ba jàpp ne dafa faatu tam amoon soxna soxna su jàpp yidda ba mu jeex bañ may ko keneen moo xam ci dafa dem ci eh, gaal yi wala leneen a tax rek ñu jàpp ne faatu na daal ginnaaw bi ñu xam ne faatuwut boobaa dañ naan soxna si kii ñu ko mujj may bu fekkee jot nañoo séq dara day wéy ak moom bu fekkee jotuñu seq dara nag dañ koy delloo borom këram bee ñu jàppe ko ku faatu te ndekete faatuwut kon fii itam loolu rek dañ fiy doxal fukkeelu laaj bi day wax ne dafa bëgg xam daal lu jëm ci sujoot bu ñuy sujoot ginnaaw bu ñu sëlmalee ak bu ñuy bu ñuy sujoot lu jiitu ñuy sëlmal ngir defare ko julli gi xam naa nag lu ñuy wax ponk da koo desee leer ndax moom ponk la wax ku bàyyi ponk loolu da koo desee leer xam naa ponk moom su jot du ko defar ndax ponk buñ ko waxee ci julli mooy farata farata su jot du ko defar su jot li muy defar na sun na ñaari sun na ku ko bàyyi kooku dañ naan day su jot waaye du ne bàyyi rek mooy waral su jot waaye yokk ci julli itam day waral su jot ku yokk ci julli te teyu ko lu ci yokk rekk te teyu ko moom day sujjóot bu sëlmalee ba noppi bu wàññee nag sunna ñaari sunna jëm kaw booba bu taayaa taaya ju mujj ba noppi day sujjóot ñaari sujjóot taayawaat taaya ju gàtt door a sëlmal bu yàlla dogaloon mu boole yokk ak wàññi ba tey day sujjóot balaa sëlmal lu jiitu sëlmal kon ponk moom sujjóot du ko defar ponk moom ku ko bàyyi farata ku ko bàyyi ci julli moom day andiwaat beneen rakka rek ko waaye sujjóot du ko defar fukkeelu laaj bi benn dafa bëgg xam ndax fase seede da seere sart wala déet wala daa am yum doon sart ak yum ko doonul ay passé yooyu euh, seed sart la ci ak yooyu doonu ko ci sart mooy loolu bu amul ci mbir mbir ma du wér kon bu fekkoon ne sart day seere day sart ci fase fase mu amul seere du wér demewul noonu nag du ci sart ba fase bu amul seere itam dana wér waaye nag bëgg nañ ko ca waaye kon sopp nañ kuy fase mu wutal ko seere waaye ñag ko wutal seere dutee mu wér seere si fi mi amee njariñ mooy buñ wuute woon buñ demoon ba góor gi ne ko fase woon naa la jigéen ji ne ko fase wu ma woon wala jigéen ji ne ko fase woon nga ma góor gi ne ko fase wu ma la woon boobaa seere Euh, seere moo leen di atte waaye boobun seere nag bu jigéen ne fase nga ma góor gi ne ko fasewuma la kon waxi góor gi lañuy ñuy mën a jàpp ndox mooy kilifa gi bu ne fase naa itam jigéen ji ne fasewut ba tey waxam la ñuy jàpp ndax mooy moo yor baat bi moo yor kilifteef gi moo sañ a fase. keelu laaj bi ak ñaar te ci mujj day wax ne kuy naafila sikki sàkka ci li mu rakka yi mu am ndax benn rakk la am bi la amagul wala ñaar rakk bii mu nekk ndax su rakk bu njëkk la wala rakkab ñaareel la ci misaal mu ne nu muy def mook farata rek ñooyam ku doon julli farata sikki sàkka rek ñooyam dañ naan bu sikk sàkka day jàpp li gën a néew mooy bu naan ndax man ci rakk bu njëkk laa nekk wala ci bu ñaareel day jàpp ne ci bu njëkk la nekk bu ko defee bu jullee ba noppi nag euh, ba sëlmal mu sujjóot ñaari sujjóot loolu bu dee farata lay julli ak bu dee sunna lay julli muy naafila ñoo ci am loolu kon mooy laaj yi fi jotoon dikk ñu jéem cee tontu suñu kem kàttan di jégglu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh